sa xel dem ci sa xel dem. sa jabar tas en plus. Mhm. di xa en fait waa ji. ndeysaan waa këram waa këram gisuñu ko woon. ñu yaakaar ne dee nañ ko ci kenn xamul fan la nekk waa këram yaakaaroon ne dafa dee dafa dugg ci gaal yi wala yooyu ba dee na jabaram tas ay njabootam. Mhm. pendant onze ans yooyu yëpp alors que agresseur yi ñu jàpp rek ñuy naan kafe ci wetam. Mhm. moo ko yóbbee loolu. c'est loolu métti na. Karim bi mu génnee li mu njëkk a def mooy dem kër waa ji. Mhm. nemmeeku ko pour di xool ay njabootam ay famille mu wax lañ ne leen waa ji deewul mu ngi ci kaso. c'est ça waaye bi ñu ko génnee 4 mois la ci teg gaañu. 4 mois kese la ci gaañu parce que déjà commencé woon na feebar ci biir kaso bi. Mhm. ba bëtam tuur ak yu bëri. donc Karim bi mu koy nettali démb émotion yu metti la woon ba jooyloo na vraiment ñi nga ne ñoom la nekkaloon. d'ailleurs li mu wax ne franchement parler moo tax moom mu mu mu mu mu mu créé lii di mouvement nitu dëgg ci biir kaso bi la ko créé Jimbori. Mhm. ngoone moom mu ngi jooy. waaw mais xam nga kaso bi <laughs> eh, Sénégal. Bamba loo si xamul mooy amul kaso. Mhm. Sénégal amul kaso yii ay kii barab la yoo xam ne tubaab yi ñoo ci doon denc ay fas mhm. waaw Sénégal musta tabax benn kaso gisuma kaso buñ tabax mhm. yii yi tubaab yi doon denc seen fas yi la mais nekkul fi ñuy denc nit ba pare kaso tey ñun Sénégal soo gisee lu ko gën a delloo ginnaaw mm. kaso yi si lañ bokk parce que la fait yow da ngay gis nit ki ñu tëj ko kaso au lieu que ñu former ko ci biir kaso bi ba nga xam ni bu génnee am métier mën a defar boppam mais dañ koy tëj kese di ko jox muy lekk. mu tëdd mu tëdd. léegi xam nga nit ki bu tëddee xam xam xam tëdd yaa ngi dégg day tardé mais nit ki mun na dugg kaso fekk na boobu jàngul woon xam-xam ñu jàngal ko foofu xam-xam ba bu génnee jëriñ société bi dara mais li bon mooy ñu jël nit dugal dugal ko kaso. kenn jàngal lu ko métier kenn formé wu ko kenn defu ko dara ba pare kaso yi gars yi leen di jàppale ñu bari war nañ ko xoolaat. parce que kafe kaso soo leen di jàppale ngoone war nga mën a indi ceeb. Mhm. indi dëwlin indi meew indi yi indi yooyu yëpp. mais la fait que nit ki ñëw si kaso bi di togg naan da leen koy yàqal loolu tamit dafa dangereux. Mhm. kaso ba yóbbul ay añ ak yooyu noonu pour man dafa dangereux. Mhm. mais man pour man ñu dem dimbale leen noonu. ba pare kaso bi bëri na fi ñu fa nekk ñu xam ni tamit nekkatuñu nit. te hmm. tamit duñ leen mën a libéré. xam nit bu demee ba wayadi xam nga dañ ko war a dem faji ji. Hmm. du dëgg yooyu yëpp dañ ko siy perte ba pare pour man Sénégal kaso yi. mënoon hmm. nañ si profitoo yaa ngi dégg kaso moom ñaanaluñ ko kenn. mais profitoo ba képp kuñ fa indi. xool ci lan nga doon yëngu bu dee da nga doon yëngu ci dara ñu fexe ba yokkal la ko pour boo génnee jariñ société bi. mais tëjum kaso kese kese doxul yaa ngi dégg doxul tëj nit ki teg ko benn place muy continuer doxul mhm, ba pare nit ki mun na nekk biir kaso mhm. tamit lu si ëpp soo gisee kaso nit ki bu duggee kaso rek njabootam jabaram wala dara su garewul dem yoonam bàyyi ko fa xam nga lu tax mhm. parce que xam na ni kaso ku fa jóge li ngay perte doo gañe dara da ngay perte mais du yoon sax rafetul noonu bu ñu fexe ba képp ku dugg kaso sooy génn génnaale ak métier wala génnaale ak dara ki ngay toog di xaar ki lay toog di xaar defe naa du dem dina am ci yow yaakaar ba tey mais képp ku ñu tëj kaso nit ki sa jabar wala say mbokk dootuñu am yaakaar ci yow. Mm-hmm. kooku xam nga day doy waar mais bu fekkoon ne képp ku ñu tëj dañ lay former ci biir kaso bi wutal la fooy liggéeyee fo ngay liggéey ci biir kaso bi ba keroog pen bi di mat ki nga bàyyi ci biti yaa ngi dégg dina toog xaar. mais nit mënuñu koo tëj comme ni ñuy tëjee kaso duñ la tëj kaso dañ lay dañ sa dund yow la ñuy tëj pour man. doy na waat kaso kuñ ko tëj ku ñuy tëj kaso ak ku ñuy nasaxal dundam du benn nasaxal dund nit ki nag ngoone mun ta weesu nga jël nit ki tëj ko kaso. Mhm. def wuñ ko ci biir kaso bi jàngaluñ ko métier liggéeyul deful dara toog rek di lekk mhm. te genn wàllu Sénégal gépp a ngi ci kaso bi. du dëgg. léegi bu fekkoon ne waaw bu fekkoon ne nit ki dañ ko tëj ngóone mm-hmm. mu ñëw kat ñu xam ne kii kat ab tailleur la ñu fexe am compagnie tailleur bu fa nekk di ñaw bu dee menuisier nga ñu fexe compagnie menuisier bu fa nekk di daaj ay lal lal ñu jël ko di ko jaay nit ñi waaw di ci génnee dara sa jabar bu la seetsee ñu yëkkati ko jox la mm-hmm. parce que li nga li nga def moom lañu li ngay jëf moom la ñu amal affaire mm-hmm. mais en tant que yow nit ki amuñook yow benn problème def def la ñu amal problème mais nit nit ki ci boppam amul ak population bi benn problème kon nit ki bu ñu ko tëjee tey mhm. liggéeyam ñu fexe ba mu nekk ci biir kaso bi mu nekk ci biir kaso bi di liggéey mhm. xaalis boobu mu ciy jot dara bu jabaram ñëwee sax seet si ko ñu yëkkati xaalis boobu di ko jox jabaram mhm. ngóone munoon naa mën a nekk parce que état mun na créer loolu mun na fexe ba biir kaso bi ñu def ci ay atelier yu xam ni ñoom état ñoo koy couvrir ñooñu di defar bale wala ñuy daat ay lal wala ñuy ñaw wala ñuy def leneen yaa ngi dégg loolu ñu koy jël di ko def ay retour ci seen njaboot mhm. kon koo bàyyi ginnaaw ba di ko fekkaat mu toog mais jigéen ñi ñoo la gën a xam ne kuñ si yóbbu sa jëkkër kaso mhm. danga naan jarul may xaar bu ñëwee jeex na fii du ñu tëj nit kaso dundam la ñuy tëj kaso mhm. bamba gis nga ñoom dañoo war a créer képp ku kuñ dugal ci kaso bi bamba ñu pexe ba créer fa bu dee téye atelier téye atelier menuisier atelier soudeur lépp nekk fa boo ñëwee ñu liggéey loola jël lool di ko jaay état mën na ko di la ci fay sa jabar bu ñëwee nga jox ko ko mais Bamba ñoom jigéen ñi xam nañ ni kaso boo fa demee sa sa sa dund la ñuy tëj tëjuñu yow nit ki te nit ki xanaa am loolu nit ki boo koy yar def-def bi ngay ngay fexe mu dañ ci moom mm-hmm. mais en tant que moom nit da ngaa war a respecter ay droit am boo respecté droit nit ki nag mun ta weesu lu dul mu ñëw ci biir kaso nga fexe ba moom même bu doon ménager la ñu formé waat ko ci kaso bi mu liggéey fa ay affaire ñu génn di jaay yooyu am na ñoom yu ñuy soxla bu jabaram ñëwee mun a ko duut jigéen boo bàyyee ti ginnaaw dem kaso dina toog xaar mm-hmm. mais jigéen ñëpp ak kullu sénégalais ku fi sa jëkkër dem kaso xam nga ni avenir am la ñuy tëj mais du nit ki mhm. suñu paree ci avenir bi nit ki lañ lay sànni te nit kese jëriñul dara mhm. lii la jërëjëfati jimboor yi daakaar naa ni ngoone moom émotion jàpp na ko ba cas boobu moom ah non <laughs> émotion jàpp vas-y ah, ah, ah, dama ne man bu dul dara sax nan ngay jàppee nit ki tëj ko lu toll ne onze ans ba mhm. pare ngay doo ko xam ne deful dara kon nit kooku tey est-ce que tamit mënul woon sax ëlbatikuwaat sax porté leen plainte ñoom 11 ans de prison nit tëdd ko nekk nekk nekk nekk ci benn benn place dafa nekk loo xam ne lu doy waar la li ngay dund li ngay li ngay dund ci kaso bi ñu bëri tey jii benn côté bi ñuy xool wala peut-être lëndëm bi wala ni ñuy toogee ñu bëri dañuy génn kaso seen bët yi di yàqu yal na ci yàlla musal nit moo tax kaso képp ñu bëri nag bëri na fa ay kaada ñu bëri ñoo xam ne tey ñu ngi fa tëdd ñoo xam ne defuñu dara tey mm-hmm. dañ leen faa teg nii rek te defuñu fa dara moo tax nit ku ci nekk euh, jombul kenn ah jombul kenn parce que nit tey mën naa génn fii léegi di dox wala nit yor génn léegi laal kenn dem ci mën nga waxanteeg nit ki léegi laal point boo xam ne mu mu yem fa kaso jombul kenn waaye yàlla nañ ci yàlla musal du yëfu du yëfu nit te du yëfu gor. Mhm. kon nag nit ku ci nekk war ngaa mën a maytu nga góorlu ba bañ a def dara loo xam ne lu la fa yóbbu la. Mhm. ñi fa nekk tamit yàlla na leen fa yàlla jëlee. Mhm. ba bu ñu defaat dara loo xam ne lu tolloog leen fa yóbbu parce que jombul kenn ah. kaso jombul kenn mais métti na métti goo xam ne surtout ma kaso Sénégal yi comme ni ñu koy waxee parce que boo xoolee man yooyu toujours histoire yu mel noonu wala neen nit ku génn prison toog di raconter dama koy déglu dama koy dama koy suivre parce que man amoon na benn benn journée journée journée xaw ma lan la sax journée mondiale jeune de la femme xaw ma boo xam ne dañ fa demoon fee daal di ji mais keroog yaakaar naa ne ñun ñëpp ñoo jooy fee camp pénal da boo fa demee fekk fa ay jigéen ñoo xam ne tey ji ku ci nekk bu lay wax eh, bu lay expliqué moom lu mu dund nga gis jigéen yoo xam ne chambre bu nekk kuy taxaw di wax ngay joué théâtre di wax yow li nga xam ne yow moom nga dugg ñu fa àndoon ak Arco Dakar li ma lay wax nii xaw na yàgg jigéen bu nekk da ngay toog di raconté yow lan nga lan nga def ba pare te boo paree danga naan lii ma def tey bu mu indi ma fi yàlla bu ma defaat ni na mel bu ma génnee sama xel bu mu xalaat loolu ba mu dellu fi parce que ñu bëri erreur dugal na leen fa am na ñoo xam ne tey jii seen doomu jànk lañ doon dóor ba xale ba yem seen loxo am na ñoo xam ne tey jii sàcc moo leen fa yóbbu ñoo xam ne jiiñ nañ leen ñoo xam ne nañ collé nañ leen motif yàq seen àdduna ba dugal leen fa kon kaso nekk loo xam ne yëfu gor la nit ku nekk booy dox suba ba ngoon jot war nga koo mën a maytu ci ñi nga xam ne ñoom ñooy def ak ñi nga xam ne dañ leen a dañ a sosal wala ba yóbbu leen fa kaso dafa nekk loo xam ne lu metti la mhm. loolu moo tax keroog ma wax ci femme boobu bi nga waxee ci femme boobu rek ma jooy parce que femme boobu yërëmuma ko mooy femme boobu sant Mbàkke mhm. moom yërëmuma ko ay njabootam laa yërëm mhm. parce que xam nga la moo tax jeeg di nga sëy ba jaay say doom waaye jeeg di nga sëy ba lambal say doom dama xam ne nag kooku ay doomam kan moo leen takk ëllëg yaa yow mi de way boo xam ne du fay ba seeni sët sa yaay fi defoon lii sa sa baay sa yaay fi defoon nangam kooku lay takk moo tax muy jigéen muy góor di jigéen ku ci nekk war nga mën a xool sa comportement ci société bi kenn du ne nag jombul kenn ku ne mën ngaa def lu la fa yóbbu waaye nag dañuy maytu bu baax a baax a baax a baax conseil boobu la jërëjëfati euh, euh, merci beaucoup donc ngoone yaakaar naa ni nag euh, mm-hmm. cas yi jeex na donc émission bi jeex na xanaa damay am cas boo xam ne léegi la ma dab mooy di dam hmm, dañu ci dañu ci wax rek am briève wala dañu koy jëlaan